Modou Ndoye maire de la commune de Ndoyène euh, coordonnateur donc de la COJER département de Kébémer waaw tey dañ fi daje euh, daje bi nag nekk ab suite ci liggéey boo xam dañ ko tàmbaloon def dëpp bu ñu taxawalee structure COJER bi ci département Kébémer maanaam d'abord ñu dajeek responsable yi nekk ci département pour expliquer leen que taxawal nañ ci benn structure de jeunesse mais aussi wax leen ambition yi ñu am dans le département de Kébémer tey lañu le directeur des mines Ousmane Cissé ñu fii tey ci CEDAF bu ci daje bi di ci profité waale defaale compte rendu université républicain bi amoon sa mbuur mais aussi defaale benn diagnostic politique gu département Kébémer ndax dañoo seetlu na ci département Kébémer wax dëgg yàlla parti APR doxul te ñu xool na li ko waral mooy que responsable yi fi nekk ku nekk yaa ngi doxal sa bopp mais amul lu leen lëkkale depuis élection locale yi ba léegi amul benn réunion boo xam ne am na ci département Kébémer loolu nag ñu xam ne ñu seetlu na vraiment day. néewal doole parti bi ci ci département bi ñun nag ñu bëgg que buñ fi jógee ah danañ sol suñu daal waxtaan ak responsable yi fi nekk yëpp ñu fexe ba woote ndaje bu mag ci département bi ah ñu taxawal coordination bu mag boo xam ne dañ fas ne liggéeyal parti ci ci département bi bëgg nañu aussi que département am permanence ndax boo xoolee dans le département amul permanence bu affaire mais directeur des mines jël na engagement def ci def def ci permanence kon nag dañ ko ci sant mais aussi bëgg nañ président la République aussi ñu defal promotion de jeunes cadres ndax bari na ay cadres yu ci fi nekk bari na ay responsables jeunes yoo xam ñoo fi nekk surtout les coordonnateurs yi xam ne ba parti bi doon dara ñoo fi nekkoon di sonn ñu si bari am na ñoo xam ne seen commune xañ na da faa gagné nekkuñu ay maire man aussi yàlla dimbale bokk na ci coordonnateurs yi man maa fi nekk le jeune jeune boo xam ne gagné naa sama commune mais jeunes yooyu dañoo bëgg parti bi. jàppale leen wax dëgg parce que loolu dana tax ñi xam ne dañoo bëgg ñëw APR dana sawar nga ñëw ndax ko xam da nga feen nekkoon depuis 2000 ba léegi ñu gis la na meloon ba léegi nga mel ni amul benn changement nga bëgg xëcc nit ki ci parti bi aussi loolu du ci sawar kon nag dañuy vraiment ñaan président que jeunes yi fi nekk wax dëgg yàlla mu jàpp leen directeur des mines aussi jël na benn engagement boo xam ne bëgg nañu accompagner à travers benn politique de réinsertion à travers le financement de quelques projets pour a jàppale jeunes yi loolu aussi dañ ko ci sant mais aussi bëgg nañoo sol sunu dàll pour que président de la république depuis trois ans yi fi def ak léegi ah def na liggéey boo xam ne nii amul benn président boo xam ne def na ko ci Sénégal bu ñu ko comparé les trois ans de Macky ak trois ans de Abdoulaye Wade yaakaar naa liggéey na yàppa photo ndax ñun département ba Kébémer trois ans yi ñu fi def xool nañ actuellement ni piste ñaari Dakar bi ñu ngi koy ñu koy réaliser am na benn yoon boo xam ne mi ngi jógee Tawfeex ba dem Daaru Marnaan naan nañ ko. piste ceeb bi xam ne ñu ngi ko doon topp ay année ñu koy defar boo demee Daaru aussi am na benn forage boo xam ne chaque màggal porte-parole lu famille bi daan wax naan ndox day manqué actuellement quatrième forage bi ñu ngi koy defar commune yoo wër ci Sénégal ci ci dans le département plus de cinquante villages actuellement ñu ngi fay commencé installer euh, courant bi kon nag loolu loo xam ne lu luñ gis lu visible la te waxuma PUDC bi actuellement ñun les maires là rencontré nañ euh, le directeur euh, du PUDC ba actuellement dans chaque commune yaa y a yoo xam ne ni actuellement d'ici euh, six mois war nañ ko dugal ci ci commune yi kon nag loolu yaakaar naa loo xam ne ñëpp dañ ko gis. mais ñàkk parti bi. est-ce que mm-hmm. du seen ñàkk juboo mag ñi bokk na waaw non ñun moom wax dëgg yàlla jeunes yi fi nekk amul. benn ñàkk jubóot si ñoom jeunes yëpp vraiment nekk nañ benn mag ñëw si kañ na amul xuloo euh, bu mag mais en entente maanaam lu leen boole lu leen boole moo amul non maanaam doo dégg benn responsable bi attaqué morom bi depuis euh, dégguñ ko mais lu leen boole man benn coordination boo xam ne da leen boole ñuy taxaw di réunion périodiquement di def ay activité loolu moo amut ñu nag loolu lañ bëgg bu buñ fi jegee tey yi ñu dox dox ko pour que loolu mën a am